malikum salam jaga man la Moustapha Diop yore bergerie buñ ñu bergerie Fari nek Sorida wa may nuy mbokk éleveur yi may mbokk nuy mbokk ñu ngi seetaan xam naan ñun ay éleveur lañ xamné ay débutant ñu do a débuté ñu ngi doog a dugg si élevage comprendre waaw moy sang li ma la wax rek ñun ay débutant lañ actuellement ñun ñu ngi doog a ñëw si foire ñu doo présenté suñuy xar doo génnee comme ñëpp rek mais bu ñu ñëwee xool exposition bi xool xaru gaay jàppoon nañ ne ñun sax guñ foofu mais xam nañ la ñu ñu si càmm waaw xool nañu xaru gaay xool suñu xar xam ne lu ñu yor tane na daal ñu ngi si waaw bëgg bëgg xar rek yàgg dem si ci foire yi di seetaan bëgg xar am ambition bi rek ba yàlla dogal ñu tàmbali waaw dañaa dañaa dañaa jàng daal doo doo doo doo soog dugg waaw. mais xool nañ gars yi gars yi liggéey nañ bu baax liggéey nañ bu baax te yaakaar ne sax xar yi euh, tollaguñ foofu mais raw nañ ko wax dëgg yàlla gaa yi moom wax dëgg yàlla ay champion la ay jàmbaar nañ waaw kii nii doomu Mifta la doomu Mifta la yor naa fi doomu Jéelaani moo nekk nii kii doomu Jéelaani la kii doomu Napoléon la yaa ji di doomu héritier waaw yor naa fi tamit bii nii tête nuit bi waaw am na yeneen xar yoo xam ne ñu ngi fee ñu ngi si si bergerie bi ñu ngi foofu mais comme que dañu ñu waxoon dañuy indi kaat ñu sélectionné kaat yi pour indi ko woon ko gaay waaw non non du yi kese lañ yor yor nañ fa yeneen xar wax dëgg yàlla amul tànk ginnaaw dëgg yàlla. ndax soo xoolee gars yi rek nit ñi ñu ñëw fi di visiter waxuma la góor ñi sax tey rek ñu fi jigéen ñu fi ñëw rek kenn xamul lu mu toll waaw kon nga xam ne élevage kon doon nekkul loo xam ne caaxaan la waaw liggéey dëgg la comme nit ñi ñu yore seen entreprise di xëyee di dem di wàcc noonu la nit ñi léegi di xëy si xar yi di dem di di di si xëy di si gont loolu la rek te defe naa ne amul benn liggéey bu ko dàq comme ñëpp rek xam nga da ngay soo soo dañ débuté nañ jënd yenn xar yi mais si tey jii boo boo demee ba génn dem si yeneen mbaaru gaay soo ñibbisee di nga xam nooy def comme noonu rek lañu def comprendre nga boobu ba léegi nag ñi ngi ñu ngi dugal di génnee comprendre nga di liggéey daal waaye actuel daal daal macha allah mais bëgg nañ dem ba wax dëgg yàlla suñu ambition moom weesu na fii mais comme que fi lañ mais ñu ngi xool ñu ngi ñu ngi ndax ba léegi bàyyiwuñu ba tey ñu dem si bergerie ñu ngi te ba tey ñu ngi ba tey ñu ngi recruté bëgg naa daal fii daal. c'est un an ku ñu seet si daal di nga xam ne ñii ñu ngi liggéey waa Terre Océan moo nekk nii le 9 la war cinq mois le non le 9 la war am 5 mois ba actuellement ba ñu ko cultivé léegi am na si ñun 2 mois 2 mois mais dëgg yàlla am nañ si moom yaakaar bu baax ne ne xar la wax dëgg yàlla waaw dëgg yàlla daal am nañ si moom yaakaar moom lañ mujjee dugal daal ñu ko bàyyi noonu daal. te comme que gars yi nee nañ lii première fois la comme te trois jours la sax waaw ñoom léegi dañ ko def nii rek pour présenter wu comprendre nga comme que dañaa defaraat nee nañ ñoom bureau bu bees ak yooyu noonu xaw après ñu participer fi ñu boole ñu si waaw mais nee nañ daal fii ak daal ay quelques mois ak yooyu noonu bëgg nañ def daal boo xam ne bu mag la soit ñu def ko nee nañ si stade wala ñu xool feneen foo xam ne daal mooy ëpp fii mais lii nii c'est juste que rek pour waaw bi nii rek pour présenter kese la waaw ndax amul concours amul fii rek waaw xanaa di sant sant ñëpp sant éleveurs yi ndax wax dëgg yàlla mënul dara sax ñëw bu fii rek ak xamante beeg yooyu di nga am ñeneen ñoo ci xam def naa loolu rek am na solo waaw. bari bi fay mi ngi sori daa mi ngi sori daa suñu numéro téléphone mi ngi nii moo nekk nii waaw bëri sori sori daa rek soo duggee sori daa rek soo ñu woowee rek mën nañ la teetal ba nga ñëw si.